di ñaanati rek suñu boroom mu sàmmal ñu suñu ngëm ginnaaw bu mu ñu defee dëggi dëggi jullit wattul ñu ko ba bu ñu demee ca moom mu kontaan ca na mu bëggee moom suñu borom subhanahu wa xam ngeen ni jotaayu tafsir bi ñu mujjee def ak yéen ñu ngi woon ak yéen ci suratul maida demoon ba amoon ci cinquante huit verset te ñu war a jël cinquante neuvième verse maanaam suratul maida ñu baal ma de ñu baal ma suratul anaam suratul anaam amoon nañ ci cinquante huit versets maanaam juróom-ñett juróom fukki aaya yu teg juróom-ñett te ñu war a jël cinquante neuvième verset muy juróom fukkeelu aaya bu teg juróom-ñeenti aaya ci seen saar bu am solo bi macha allah di suratul anam tey foofu la jële borom bi subhanahu wa tey dafay wax lu am solo day wax ni ndekete bari na lu nit mooy la ma doon junj keroog rek si lay ñëwaat mooy bari na lu nit defee ni am na ca xam-xam te xamu ca dara loolu la yàlla di jàngal rawatina nag wàllu kumpa yàlla nee na loolu moom moom domaine privé la moom moo ko moom moom yàlla mu ni wa nekk na ca yàlla wa yàlla mooy ki xam wa yàlla mooy ki amee mafatixul xay bi caabi kumpa yi nee na yàlla moo ko xam xanaa loolu doy na mu teg ci nag ni laa yaalamuha illa huwa suñu borom nee na moom képp moo xam kumpa moom képp inda allahi xazainul xayb wa hiya al umuru al muxayabatu al xafiya laa yaalamuha biha illa huwa nee na mbir yu fàddu yu làqu yu nëbbu yi ak ni suba di subaa ak ni muy demee nee na yooyu moo ko yor moo tax boo demee ci a ahzab mu lay wax waxam ju am solo jooju wala su ma juumul suuratu luqmaan bu mu ci rek mu ngi naan la inna allaha indahu ilmu saati wa yunazzilu algaytha wa yalamu ma fi larham wa ma tadri nafsum maada taksibu gadan wa ma tadri nafsum bi ayi ardin tamuut inna allaha alimun xabir sadaqa allahu alazim di la wax ne la am na yoo xam ne moom moo ko yor kañ la àdduna di lay taw suba nu muy demee bakkan bu ne fan lay faatoo ak yu ni mel ak jigéen bi ëmb la mu ëmb nee na yooyu maa ko xam samay kumpa la moo tax gis nga fi waxul wa indahu miftaaxul xaybi bi la ko wax jamoo la ko def nee caabi kumpa yépp yàlla moo ko yor téye ko te du ko dénkaane ndax laa yaalamuha illa huwa kumpa ak li fa ak li xew ëllëg ak namuy ame amee nee na moom yàlla moom képp moo ko xam moo tax mu ne laa yaalamuha illa huwa kenn ku dul yàlla rek xamoo loolu mu ni it wa moom yàlla moo xam maa fil barri li nekk ci jéeri ji wal baxri ak li nekk ci géej gi nee na looloo yàllaa ko xam loolu yàllaa ko xam boo toogee ñu naan laa yow de diwut mi de xam na la ci biir géej la ci la ci jéeri yëpp xam na ko waaye la ci biir géej yëpp it ruqi ruqi yëpp xam na ko ah yàlla dina ne moom moo ko xam yàlla daal li waxal boppam mooy wa yaalamu moom yàlla moo xam maa fil barri li nekk ci jéeri ji wal baxri ak li nekk ci géej gi moom yàlla moo ko xam moo ko xam min al xayawaanaat euh, diggante jéeri euh, ji ak géej gi li fi nekk ci ay bàyyi ma li fi nekk ci nit li fi nekk ci jinn li fi nekk lépp daal yàlla mooy ki ko xam mooy ki ko maîtriser mooy ki nga xam ne moo ko yoreel boppam moom borom bi subhanahu wa taala mun it nag wa ma tasqutu min allahu akbar nee na yàlla nee na benn xob benn feuille d'arbre du rot illaa yaalamuha lu dul yàlla xam na ko xam na it fa mu rote ak na mu wadde saar bu doy waar a ngi di suratul anam waaye gis nga ay yii nag mooy ay yàlla di wane kàttanam dëgg nag nee na wa ma tasqutu min waraqatin illaa yaalamuha ci garab gii di yàlla xam na ko yàlla xam na ko xam na ni mu wadde xam na li ko waddalit moom suñu borom subhanahu wa taala nee na wa maa du rot min waraqatin benn ci benn xobu garab du rot illaa lu dul ni yàlla xam na ko allahu akbar la wax rot nan la rote ba muy rot ban côté la la la la feuille ba tëddee sax nee na yàlla nee na moom xam na ko mu ni wala xabbatin fii xam nga loolu ci kaw la ci kaw la ndax maanaam ci kaw suuf la la la loolu la parce que xob bi bu waddee ndig ci kaw garab gi bu waddee ci kaw suuf si la lay tege kooku dee deen xam na ko mun la boobu xam nga loolu moom xel loolu nekkul lu ci nopp moo tax mu indi la boobu ba pare ci si technique wala xabbatin fii dulumaati l ardi nee na amul benn pepp bu ñu dugal ci lëndëmuk suuf si wala ratbin amul lenn lu tooy walla yaabisin amul dara lu woow illa fi kitaabin mubinin lu dul ni loolu lépp mu ngi ci benn téere bu bir borom bi subhanahu wa bind ko def ko fa illa fi kitaabin mubin nee amul benn xob buy wadd lu dul ni xam na ko moom yàlla benn mu ne amul benn peppit boo xamante ni lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti nekk ci biir suuf si lu dul yàlla xam na kañ la fa nekk xam na nan la fay nekke xam na nan lay nan lay saxe nan lay génne ak pepp boobu sax wa man yaquluha kan mooy lekk pepp yooyu nekk ci biir suuf si sax yàlla subhanahu wa taala xam na ko allahu akbar yàlla nee na loolu xam na ko place am ca suuf sa ndax dina sax wala du sax ñaata euh, pepp cay génn kan mooy lekk pepp yooyu xëy na pepp yi de ñu ngi koy bayee fii ci Sénégal ñu ngi koy bayee ci tooli senegal yi waaye pepp bii di génn de suñu boroom xam na ni ka ko war a lekk mu nga ci Europe allahu akbar allahu akbar ceeb ba ñu ngi koy bayee ca Cambodge wala ñu ngi koy bayee ca Pakistan wala ñu ngi koy bayee ci Inde fa mu fu mu moom foo na jóge foofa mu ne ceeb bii day moo ne bu génnee waa dëkk bii du ñoo koy jëfandikoo waaye dinañ ko indi Afrique dina am lu dem senegal dina am lu dem Côte dina am lu dem Mali dina am lu dem dina am lu dem allahu nee na màngo ngii boo xamante ni xoox bi day la jiwoon mu màgg ñu koy roose ba mu màgg ba xëy doon garabu màngo gu mag ami doom doom yi nekk ci kaw de yàlla xam na yi ci borom tool bi di lekk ak yi nga xamante ni dina ko araamal xëy na bu wàccee la koy gëj gis ndax dañ koy def ci béréb dugal ci avion wala dugal ci bato mu dem beneenum réew ka ko war a lekk ci réew moom sax yàlla xam na ko allahu akbar allahu akbar mbokki mu ni kon peppu kawa peppu pepp boobu nekk ci lëndëm mu teg ci ni fii zulumaati l ardi maanaam boobu nekk ci lëndëm lëndëmi suuf yi wala ratbin déet dara lu tooy moo xam tàndarma ju tooy la moo xam wala yaabisin walla bu wow moo xam garab gu tooy lu bu saxal lu tooy la wala mu dem sax ba wow lu mu ci mën a doon ci yooyu yëpp rek illa fi kitaabin mubin lu dul ni loolu lépp dina nekk ci téere bu bir borom bi subhanahu wa taala xam ko moo tax chahidul islam Seyd Qutb borom fi dilaalil Qur'an wax ni fii borom bi subhanahu wa taala wane na fi ay wane na fi kattanam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg moom borom bi subhanahu wa taala wane ni xam-xamam tënkuwul ci temps waaye tënkuwul it ci espace nee na loolu la boo ne boo déggee ni yàlla waxe wa indahu mafatixul xaybi laa yaalamuha illa hu wa yaalamu maa fi l barri wal baxri nga dégg wa maa tasqutu min waraqatin illa yaalamuha wala habatin fi dulumaati l ardi wala ratbin wala yaabisin illa fi kitaabin mubin Sayyid Qutb nee na loolu da nga cay déggee ni yàlla tënk xam-xamam tënkuwul ci temps waaye tënkuwul ci place macha allah moo xam moo tax nee na moo lay wax na la ci asamaan saak ca géej gaag ci jéeri gaag ci biir suuf saak la ca kaw suuf saak lay dund ak lay deew ak yooyu yëpp yàlla di la ko génneel fii nee na yàlla daal day wane ni daal moom borom bi kenn du moom loolu la Sayyid Qutb wax boo demee fii dilaalul quran dina la ko ca gën a yaatalal ci boo demee ci aaya yi moo tax kenn du suñu borom moo tax abu xayaat ni xoolal rek xoolal rek yàlla ni mu mën a nosee ay kàddoom abu xayaat nee na nañu jàngat bu baax yàlla ni muy nosee ay kàddoom moom borom bi mbiram du ko du ko du ko du ko sorxo sorxo déedéet waxam sax dafay tegu ci yoon moom suñu borom allahu nee wax suñu boroom dafay tegu ci yoon soo ko déggee rek xam ne kii yàlla rek a mën a waxee nii yàlla rek moo mën a waxee nii da nga koy sentir ci kàddu suñu boroom gi buy wax mooy lan mbokk yi mu ni badaa awalan bi amrin maqulin laa nudriku nahnu bil hissi wa huwa mafatihul xayb nee na dafa doore ci mbir moo xamante ni xam nañ ni amuñu ca xam-xam waaw ci ku nite ku dal ku rambaajul seytaane woo doodoo waaba jiiba doonoo njuuma di nga xam ne loolu xamoo ca dara nee na mooy mafatixul xay bi mooy caabi kumpaag lu ca aju nee na moom la doore ba loolu féete boor mu ni mu pare ci loolu indi ñaari yan suma saaniyan bi am nudriku kathiran minhu bil hissi wa huwa al barr wal bahr nee na mu indi loo xam ne nag moom dañu koy lu palpable la lu ñu xam la muy jéeri ji ak géej ji nee na mu indi ko bu ñetteel bi mu indi ñaari mbir yu yu yu doy waar yoo xamante ni yu yéeme la benn bi nekk ci kaw benn bi nekk ci suuf mooy suqutul waraqa min uluwin wa thani sufle wa huwa iqtifaau habatin fii batni ardi nee na mu ni mu indi ñaar benn bi mooy xobu garab gii wadd nga xam ne lii moom lu ñuy laal la nga xam ne mu ngi nii nee bii mu indil la ba ca suuf nee na borom bi subhanahu wa taala waxee na noonu yëpp ne na day wane nii moom yàlla li bareeg li tuuti yëpp moom mooy ki ko géré mooy boromam moom borom bi la abu xayan dégge moom ay mu ni it wa yàlla mooy ki nga xamante ni yatawafaakum bi leyli nee na moo leen di faat ci guddi yi allahu akbar mu tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi keroog bi ko yàlla yónnee mu ñëw wax ak ci mbokkam gis ne am na ci ñoo xamante ni dañu réticent ñenn ñi sax def ci mbaadoo la ku mel ne abu lahabin ak la mu ca wax naan ko ab tabban laka li hada daawtana yow yaa ñàkk teggin yow yaa yaa yaa yabaate yaa ñàkk yar dajale say bàyyi naan leen yàlla ma yónni keroog yonent bi alayhi salatu wasalaam bokk na ci lim leen wax innakum la tamuutuuna kama tanaamuuna wala kama tastayqiduuna neewoon na leen keroog bokk sama mbokk yii maa ngi leen di wax nii di ngeen dee comme ni ngeen di nelawe léegi kon nelaw beneen affaire la de moo tax yàlla fii ni wa huwa allazi yatawaffakum bil layli nee na moo leen di moo leen di rey ci guddi yi de nee na moo ñuy rey ci guddi yi bu dee dañ ko firi rek firi bu leer rek huwa moom mooy allazi ki nga xam ne yatawaffakum moo leen di faat bil layli ci guddi yi waaye moo tax yonent bi neen di ngeen dee comme ni ngeen di nelawee ndax ku nelaw fàtte say bor nit bu tëddee fii di nelaw nga wax moom wax da nga de ah kii de fàtte nay borom kon moom bokkatul bokkatul moo tax tëdd garaaw tëdd <laughs> ñun dañ ko yombal mais ndeketee lu garaaw la tëj sa bunt rek tëdd nit tëj na bunta ba day ba tàyyi ñu daj ji bunt bi pour génne ko moom jébbali ko borom loolu de xam ngeen nii xam nañ ci ay nit yu bare bare bare tax booy tëdd mooy wax ni boo xoolee ñaan gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxe ci nit buy tëdd da ngay gis ni sax day mel ni kii kii wax loolu dafa am lu mu lu mu lu muy lu muy muy lu gis nga li wolof naan ku bëgg ci cere jaboot di nga ni doom ja yaa nguub xam naa ni wolof yooyu moom sama gars yi duñ ko xamante léegi xadigg yi aja xadigg ca bulwaa ca France ko woowati ma sonal maag sa wolof yooyu wolof nee na ku bëgg ci cerey jaboot danga naan doom ja yàngu waaw kon nag faaw mu firi loolu ndax maa ngi amee sama benn maire mais bille saw macha allah nekk fee ca yëmbal moom it di ànd ak ñun ci tafsir bi yenn sax yi ma baatu wolof bii di diis na lool lool lool nee ma waa kem mooy lan man ko ah mooy mooy misaal rek mooy mooy lu tolloog dara rek kon nag ma ne ko wolof bu la waxee loolu mooy soo ñëwee ci kër gis ndaw suy teg cereem di ko togg nga bëgg mu may la ci cere ji doom ja nekk fa di jooy di nga jéem a naxtaan doom ja ah, pour bañ mu yàq mu yàq mu mu mu tàmbali liggéeyu yaay ji du sax mbaax sax waaye ci cere ji nga bëgg rek moo tax nga moo tax mu la di ni doom ja yàngu kon nit buy tëdd dafa war a ragal yàlla jël ko ci guddi gi ba lu ne war na ko wax boromam. dal tax nga ko bismika allahumma yàlla. waa ngi tëdd de dañu bëgg booy tëdd nga jàpp jàppal jigéen ji nekk ci jamono yi ay réglam sax buy tëdd na jàpp na tëddaale jàpp boo tëddee tëddal ci sa ndeyjoor maanaam bul tëdd nii sa càmmoñ bul doo dooxlu nii bul jaaxaan tëddal ci sa ndeyjoor boo tëddee jëlal sa loxo nga teg teg ci sa bopp di wax ak sa borom nan bismika allahumma sama borom yow bi yàlla ci sa tur de laay tëdd nii tëdd bii may tëdd nag ñaari mbir man na ci am dama ngi ci gàccee ngi ci amuutu wa ahya ci sa tur si laay tëdde nelaw si laay faatoo yi nag waaye wa ahya si laay dekkee ma ngeen ko bismika allahumma jan janbi yow yàlla sa tur sa màgg ci sa ndigal laay wéere sama wet mooy wadaatu bi boo ci jël baax sa soo ko waxee loolu yàlla dogal nga tëdd ndeysaan am ñoom tëdd nañ rek mu roof leen AVC ndeysaan moom la moom suñu borom yenn saa yi nit tëdd na AVC ba jël yóbbu ko yenn saa yi sax nit tëdd ndeysaan bu yi ñu yeewu fa dóor dóor dóor ju ñu dem xool fekk ni wuy jina borom mu tax wolof yi di wax ni yàlla nañu yeewoondoo benn benn kër goo gis ñu jógandoo benn jóg mooy musibam mbàbb ma dugg na fa waaye bu jàmm di am duñ jógandoo kii day jóg fudd jóg jaar ne kii jóg ne par benn benn ba ñëpp jóg waaye gis nga soo tëddee ba yeewu ak jàmm ak salaam boo tëddee nga tëdd nelaw nelaw nga yeewu nga lu ne dañ nga ko sax xëy na ci guddi ga waaye yeewu nga ci jàmm jóg ba fuddwaat nii yëg ni ya ah, yëg sa yaram yëpp dikk na xam nga loo koy wax alhamdulillah alhamdulillah xam nga da nga ne kon bismi da dégg wolof naa yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim génn ci ci alhamdulillahi rabbil alamin bii de moo ci gën a wóor moom ndax ba ngay dugg da nga ko bismika allahuma yàlla maa ngi tëdd ci sa eh, ndigal de waaye si laay dunde si laay deewee si laay wéere sama wet gi waaye ba nga yeewoo nga ni ko alhamdulillah <laughs> maa ngi sant yàlla ban yàlla alladi yàlla mi nga xam ni axyaana moo ñu dekkal baadama amaatanaa ginnaaw ba mu ñu rayee wa ilayhi nushur ca dellu gi ca moom la moom borom bi subhanahu dellu gi ca moom la lii da waxaat kon mu ni ah na ngeen xam ne huwa alladi yatawaffakum bi layli mu leen di faat ci guddi yi de danga ko alhamdulilahi alladi baax dama ma amatana waaye nag teewul xam naa ni dekkal nga ma bii waaye wa ilayhi nushur bis dina ñëw may nelaw faatu wala ma feebar faatu wala ma accidenté faatu wala ma am benn moor sibit bu ma dal kenn yëgul dara lu may métti ma jékki-jékki def ma arrêt du cœur ma faatu waaye lu mu mën a doon daal wa ilayhi nushur bis dina ñëw ma faatu ñu delloo si ma ci yow sama borom subhanahu wa lii nga ko wax mbokk moo tax mu ni wa huwa alladi yatawaffakum bil layli moo leen di faat ci guddi yi waaye wa yaalamu maa jaraxtum bi nahaari moo xam li li ngeen fàggu it ci bëccëg gi bëccëg gi activités yi ngeen fi dox yëpp moo ko xam moo tax ah, suñu góor ga daan na ko wax yàlla na ko yàlla sàmm aar ko bay Abdullahi Thomas ma ziyaare ko bu baax a baax a baax ci Mbuur Thiès dañ daan def suñu tafsirul Qur'an yooyu nga xam ne si la ñu mag ñi tàggate woon bàyyi Cheikh Diop ca bayti Dakar ma ziyaare ko ziyaare njabootam yëpp ñoom xaaj Mouhamadul Moustapha ñoom Babacar Diop macha allah ak seen i kem Babacar Diop ñu gën ko ràññee nag mu ngi ci wàllu politique bi waaw ñu ziyaare ko bu baax moom it ziyaare yi nag njabootu Baye jepp yëpp nag macha allah ziyaare leen ñoom ñëpp nag am kuñ ca bàyyi rek dongo yim ñu joxoon ñu yor leen ca daara ja macha allah yëpp ñoom Mouhamad ñoom Ahmad ñu yëpp daal ziyaar nañ am kuñ ci fàtte mbokki jullit yi góor ga Baye Blaye Thomas bu ñu masaan waxtaan ba yenn heure yi danaan nag nañu tas mu ne parce que kuy defar bëccëg doo yàq guddi loolu daal kuy defar bëccëg doo yàq ki nga xam ni moom ndeysaan moom bu xëyee nee na jaaw amul benn programme waaye waaye nit teel na quoi fii ne bu ñu xëyee defewuñu dara da nga naan maa defewul dara waaye nit ñi dañuy defi dara koo xam ne moom du tas jotaayu guddi mukk mukk mukk xanaa boo deful dara sax nga dem naa fi la julli ji waaye yow daal moom nañ ko jàpp nii rek ataay ji boo toog boo toogee une heure de temps xel ma yow sax yow ataay ji loo koy parax paraxee waaw parce que moom deful dara day bëgg nit ñene fa di wax ba quatre heures du matin yenn saa yi du jox julli ji fajar foofu lay jaar seen kër dem tëddi nelaw a nelaw a nelaw ba quatorze heures quinze heures mu soo ko kooku dafa yàq bëccëg kooku koy moom kon moom bu yobbo mu xool nu mu defar guddeem waaye kuy defar bëccëg noo yàq guddi moo tax mu ne wa yaalamu maa jaraxtum binnahaari yàlla nee na lépp lu ngeen def ci bëccëg géet nag seen boroom xam na ko macha allah ma kasabtum min al ilmi bin nahaari yàlla xam na ko lépp de lu ngeen ci def Qurtubi nee nee na loolu lii nag mu lay wax nee na du dee dëgg de waaye nee na mooy téye gi muy téye sa ruu boo demee ci Abdullahi ibnu Abbas nee na yaqbitu arwahakum fi manamikum nee na yàlla mooy téye ñëpp suñu ruu yi jamono ba ñuy nelaw suñu yeewu rek mu delloowaat ñu ko allahu akbar kooku mooy suñu borom mu ni summa yabaasukum fiihi topp nag mu dekkal leen ci bëccëg yi fii booba day dellu ca bëccëg bu ngeen yeewoo nag kenn ku ci nekk nag nekk ci itteem li daa ajalu musamma ngir kenn ku ci nekk nag matal euh, mottali doxal li nga xamante ni moom lañ ko àppal maanaam bi ngeen yeewoo ci bëccëg gi kenn ku ci nekk nag E, nekk ci sa yitte rek di doxal ba jëm ca àpp ba ñu tudd nga xam ne di nga fa yegg maanaam guddeeg bëccëg rek yaa ngi nelaw boo yeewoo nekk ci say activité nekk ci nekk ci nekk ci ba yenn heure yi rek waaw nee na loolu mooy la ngay def ci bëccëg gi nee waaye nag bu àpp ba jotee rek summa ilayhi marji'ukum nee na ca moom la seen delluwaay ba di nekk moom suñu borom subhanahu wa taala summa ilayhi marji'ukum nee na ca moom borom bi subhaanahu wa taala fa la seenu dellu di nekk ñépp fa ngeen di dellu nee na ñu ñëpp dañuy delluwaat ca borom ba subhaanahu wa taala tax mu ni ko mu ni ñu si sutul xaashiya inna ilayna iyaabahum waaye summa inna alayna xisaabahum loolu la suñu borom wax nee yéen ko moom de waaye nag guddi gi dina ñëw te guddi gi bu ñëwee nee na nee na si manit ngeen di dellu si ma réglé leen waaye dellu si bi moom ci man la après nag rek la soog am mbokk jullit yi borom bi subhanahu wa ni loolu lépp de moo koy def nee na dellu gi ci moom la waaye summa yunabbiukum bi ma kuntum taamaluun borom bi subhanahu wa taala nee na boo pare nag ma soloo leen la ngeen nekkoon di ko jëf ma wax leen ko kenn ku ne su ngeen ñëwee fii kenn ku si nekk la nga doon def ca bëccëg ya ak defkatu guddi ya it ku ci nekk dinaa la wax la nga doon def summa yu yukhbirukum bi a'malikum wa yujzikum alayha in xayran fa xayr wa in charran fa charr yàlla nañ ci yàlla musal nee na bu ngeen ñëwee fii li ma leen fii doyee mais mooy kenn ku ne dama koy soloo la mu doon def nee na kenn ku ne dinaa ko soloo la mu doon def waxoon ni ko yaa def lii ak lii ak lii suñu borom subhanahu wa taala na bu boobaa loolu mooy am summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kenn ku ci nekk nag ma soloo ko la mu doon def la mu fi nekkee woon yàlla nee na wa huwa moom yàlla alqaahiru mooy ki not fawqa ibaadihi ci kaw jaamam yi yàlla moo am suprématie ci jaam yi yàlla mooy buur mooy bummi mooy def mooy dindi nee loolu moom maa ko moom man yàlla lépp day toroxlu ngir sama jëmm ci moo tax bu yowmal xiyaamee ba ñëpp tëdd dina taw taw bu amee ñeent fukki at moom borom bi naan limanil mulkul yawma ana buur yi ana président yi ana chancelier yi ana premier ministre yi ñooy ñu doon takkal garaat yu kawe yooyu yëpp anañu tey nañ ñëw ana prince yi les princes héritiers anañu nañ ñëw ana ñëpp laa la wax ana ana directeurs yi ana sëriñ si ana taalibe yi ñëpp li manil mulkul yow ma dama leen di laaj kan moo moom nguur gi tey ñëpp ni tekk mu ni lillahi alwaxidi alqahaar borom nguur gi du kenn ku dul suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni moo am noteel ci jàmm yi mu ni wa yursilu aleykum xafada nee na moo ñuy yónnee it ay gardien ñoo xamante ni ñoo ñuy wattu mooy wa inna aleykum la xaafidina kiraman katibina yaalamuuna maa tafaaluun boole ñu ak ay ñoo xamante ni ñoom ñoo ñuy topp kat di xool lu ñuy def ñoo koy bind muy suñu ñaari malaaka yi nga xamante ni ñu ngi ànd ak ñun noonu nee na moo koy def kenn ku si nekk nag boo xasee ba doon mukallaf rek boole na laaj ñoom ñu topp nee na xatta idaa jaa ahadukumul noonu ngay nekkee rek ñuy ànd yow di ànd ak yow di ànd ak yow ba waxtu dee dikkal la su dikkee rek tawaffatu rusuluna nee na suñu ndaw yi faat ko wa hum laa yufarrituuna te kat lu ñu sàkk naa mbokki mbokk yi loolu lu yéeme la yàlla nee na saa yoo demee ba dee dikkal ñu nee na sama ndaw ya ñoo leen di faat tawaffatuhu rusuluna nee na suñu ndaw yi faat leen te buñ leen di faat wahum laa na ñoom dee du ñu sàggan gis nga mbokk yi laa leen doon wax ni leen ndekete benn dee garaw na mbokk yi dee ndekete du benn malaaka mooy rey moo tax yàlla ni def ko au pluriel tawaffatuhu rusuluna la yàlla wax nee na euh, bu ay gardien daal laa lay boole ñu lay topp bu sa waxtu dee dikkee nag nee na mbooloo malaaka bi nga xam ne ñoom laa dénk say mbir moom la leen doon wax leen étape par étape la kii li mu yoroon ci sa dund mooy dox boo mënatu la dox danaan la jeex na amatoo looy dox nga paralysé kii lekk la yoroon soo gisat gisatul loo war a lekk mun la amatoo fi dank boo fi dank kii naan la yoroon su gisatul loo naan mun la amatoo fi guuxu ndox li fi nekk pour ñeneen la maa doon sa ministre de maa yoroon wàllu ndox mi yow amatoo ndox moo fi mën a naan kii dem ba si ak ni la nokki gi nga waroon a nokki oxygène boobu man lañ ko dénkoon li nga ci amoon jeex na ñu woon ak seen le grand patron muy malakal mawt mu ñëw ni aywa kon bismillah malaaka yi jàpp sa tànk ñi jàpp sa loxo ñi tëral la ñi ñàdd moom mu ñëw exécuté tawaffatuhu rusuluna wa hum laa yufarritun waaye nag bu des lu ak ak acte bi nag qul yatawaffakum malakul mawti alladi wukkila bikum summa ilaa turja'un mu ni kon loolu mooy am te nag xaay kaay leen nag ma wax leen wa hum laa yufarrituna ñoom sàgganuñu de ñoom sàgganuñu ci ndigal lii leen yàlla sant ak bu leen nee faat leen nee na dañuy faat mbokki jullit yi ah mbokk yi fi ñu nekk am na solo waaye waxtu yi tàggu nañu kon nañu teg suñu baaraam foofu bu ñëwee sof li nga xamante ni moom lañ sosoon yàlla yalla yàlla defal dégg yàlla na yàlla defal topp aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimina wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu